yàlla moom lim digle lépp kenn mënu koo def mais def ci la nga man la mu tere nag moom bu ca jéem dara baax lépp tooke la loo ci laal alku mu yég ne nag nit ki duhut malaaka léeg-léeg kanam ak seytaane mën na koo man ba mu tarxiis ndax moom fakkastalu mu ki ci yombut yonentu yi rek la yàlla def ñuy maasumiina yi nga xam ne ñoom mënuñoo mooy yàlla luñ xas nekk ña nga ca yàlla dafa leen mooñaale ak mat waaye ku dul ab yonantu tarxiis na la dab waaye yàlla nag nekk buur bu baax ne sa tarxiis lu mu bëri bari bari du tax ma ne man fuuti na yàqu na soxlaatuma ko déedéet man feek jaam bi mi ngi may tàllal ay loxoom ma di ko tàllal samay loxo di ko soxla moo tax nag mu hubbi la fenêtre boo xam ne boo tarxiisee fan nga war a dellu pour ba mën a giseeg sa borom kooku nag mooy fenêtre ab tuub moom lay bëgg a wax si nii tuub nag xam na solo xam solo gim xam solo moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne attaibu mina zanbi kaman la zanba la ku xam bàkkaar tuub ko moo ki xamul bàkkaar ñoo xam àtte tuub moomu nag dafa am ay charta pour nag mu mën a mu mën a maanaam yàlla nangu ko mooy faw nga fexe ba matal charta yi ñetti charta mooy tuub bu fekkee da ngaa tooñ sa boroom ñett la boo tooñee sa moroom ñeent la am na ki borom xam-xam yoo xam na dañoo jàpp ne boo tooñee sa morom ñeent boo tooñee sa borom ñeent ba tey boroom lax dëgg nag moom ñetti la andi moo tax mu ne tuub nag lay bëgg a wax moo tax mu ne waya tuuba war na mu tuub ilallaahi jëm ci yàlla su subhanahu tudd na ma ak sellam xabla an yasxata njëkk muy sànjaale ci moom war ngay gaaw tuub bala laa sa borom bee jéppi nu ñuy tuubee mu ne wasurootu tawbati sartaay tuub bi ci njëkk an na damu mooy réccu lu taxoon ngay def bàkkaar bi alaama faata ci li wees ñaareel ba wan niyatu mooy yéene allah yaxuda ba déet muy dellu ila zanbin jëm ci bàkkaar fii ma baqee ci li nga xam ne des na àlle ci moom min umri ci dundam nga ne ali des sama dund lépp bàkkaar bi may tuub dootuma ca dellooti ñetteel ba wa an yetruka mu bàyyi almasiyata mooy yàlla ga fii saatiyaa ca saasa inkaana ndem nekkoon na mu ta labbisan di aji làmboo bi ca mooy yàlla ga li ngay tuub kay nga ko war a bàyyi waaye maa ngi tuub te nekk ca man ta nekk kon daal tey lii boo ko doon misaal yàlla dafa ñoo rëddal benn miir boo xam ne mooy suñ frontière ku sob nag seytaane man la ba nga jéggi miir bi yàlla dafa lay wax ne la ba tey mën ngaa dellu si waaye nag ci ñetti condition bi ci njëkk d'abord fexeel ba jéggi xaat miir bi dellu si waat fi nga waroon a nekk kooku mooy al iqlaaw muy buddeeku baxi lu bon la doon def ñaareel ba mu ne réccul la taxoon ngay jéggi miir bi miir bi man la woon bu ko jegee nga dem di ko jéggi nga réccu ci sa xol métit lu ko ne man daal li taxoon may jéggi miir bi daal réccu naa ko lool bu laajee jooy nga jooy ndax dafa am ñoo xam ne seen ronkañ dafa jege seen bopp xam ci ñoo xam ne nag seen xol dana jeex ñu koy métitlu ba mu tere ne na nelaw waaye du tax bi naa ñi jooy nga def noonu ñetteel ba nag nga ne xawma kan mooy jéggeeti miir bi waaye du doon man di des ci sama dund miir bi dootuma ko jéggeeti ñett yi boo ko xasee def ci tuub rek yàlla jéggal na la yàlla boo ku baax la ndax moo tuddee boppam ne innahu huwal barur rahim moo tax bu tuub laajoon nañ ko xaadimu rasuul mu nirale ko mu ne ak see safara mu ne tuub daal fekk amut melokaanew see bopp safara yàlla nangoogut ko luy see safara xam nga ne see bopp safara moom ku sob ba tëb dugg ca dese nga beneen tëbin tëbin ngi nga dese nag mooy iqlaaxu buddeeku ku tëb ci moom ba dugg ci séewab safara da nga tëbaat xaw ma nag ngay tëb daal yi fay waaye moom tëb moom da nga dese nga beneen tëbin daal tëbin googu nga dese nag mooy buddeeku baxi lu bon li nga nekkoon ñaareel ba séewab safara ku ca dugg ba xas génn danga nga réccu lu taxoon nga dugg ci ñetteel ba séeboobu safara ku ca dugg ba xas génn ba réccu xaw ma ban séebu ngay duggaat waaye doona doon bii tuub nag bu amee ñetti melokaano yooyu xaadimu rasul nee na yàlla nangu na tuub ga ñeenteel ba ca boroom xam-xam ya yokk mooy dabaatal su fekkee ne da ngaa nekkoon ku doon nekk di nekk ci àll bi taxawaalu faat ay waxtuy julli faat ay koor faat maanaam lu bari gaawal nga dabaatal na gannaaw bi nga tuubee say julli ya nga fexe ba fay ko niñ koy fayee téere bi dana la ko jàngal si koor yooya faatoon la nga fexe ba fay ko nga seet bi nga mësoo rek léegi li nga sànq ci ay farata yàlla yoo xam ne danga nekkoon ci àll bi di saata gaay nekk ci ay caaxaan di doxal sag ndaw ba nga mujj nag bëgg a tuub su boobaa tamit seetal yooye ñu waroon a def yépp nga di ko fay nañ koy fayee boo ñu toppee ci téere bi incha allah danañ ci xegsi su ko defee kon nag tuuba ngoog su fekkoon nag tey ki nga tooñ sa moroom la ba tey da nga réccu lu taxoon nga tooñ ko da nga bàyyi tooñee ca saasa dootoo ko dangatu mukk tamit nga waat ko ba ca tegu tamit mooy nga dabaatal su fekkee ne da nga wan alalam demal nga delloo ji ko boo sàccoon xalalam muy xàqam demal nga jox ko ko su fekkee da nga koo tooñoon ci jëw ko mbaa nga xas ko mbaa nga rambaaj ko demal ba gis ko boo ko gisee nga ne ko sëñ bi baal ma àq waaye nag boo koy baaxalu àq bul ko leeral li ngeen jotee woon loolu xeetu yonentu yàlla Muhammad rekk la ko yàlla jagleel yeneen xeet ya ko jiitu woon ku tooñ sa moromam nit soo koy baalu xaq danga ko wax ne ko baal ma dama laa jëwoon baal ma dama laa fenaloon baal ma damaa damaa jote woon ak sa soxna waaye xeetu yonant bi loo nit ki ameel àq soo koy baalu boo ne ko baal ma ci tooñaange yi dox suñu diggante bu ne la baal naa la rek dugal na lépp loo xam ne ni yéene woon nga ko pour baalu ko jërul nga di ko ko leeralal ndax xeet wi xeetu sutura la xeet wi xeet la woo xam ne dañoo mooñaale ak sutura bëgguñu suñuy bon bon yi ñëpp di ko xam kon nag kon boo tooñee sa moroom gannaaw bi nga defee ñett yi demal nga dabaatal bu dee xalal nga jëloon moom fokk nga delloo ko soo ko delloo ba pare nag moom door koo baalu àq su dee nag wax joo xam ne moom loo waxoon lu ñaaw ci moom la man nga koo baalu àq saa nga leeralal ko li nga waxoon ci moom kon nag yooyu mooy sartay tuub mu teg ci ne wala yexilu du daggan lëxoo ñeel mu kallaf an yu axira mu yéexe a tawbata tuub ga ah yaa ngi xam bàkkaar nekk fi di yéexamtulu xamoo kañ ngay dee bàkkaar kay boo koy xam gaawal gaaw nga lagg dem tuubi sa borom moom ku baax la ku yaatu la ku tàllal ay loxoom ñëpp la ku ñëpp xaj ci moom te moom xajut ci kenn la su boobaa bu fi nekk naan man kay duma mën a gum tuuba gum léegi ndax man ngaa dee léegi yóbbaale sa bàkkaar yi te kon bu la ko lu nga dem safara kon nag gaawal rek nga fexe ba teye ñetti yi réccu yéene na doo ko ci dellooti te nga bàyyi la nga nekkoon kon bul yéexe tuub tuub kenn du ko yéexe bokk na ci yi ñu war a gaawe yonentu dafa waxoon ne nii ataani minallaahi wala ajalatu min ashaytaan mu ne teey def nànk daal ku koy def yaa ngi ànd ak yàlla yàkkamti përëx-përëx yi nag koo ko gis nit ki di ko def mi nga ànd ak seytaane waaye setti nañ ca lu mat juróom-ñetti yëf ne bëgg nañ ko ko gaawee juróom-ñetti yooyu fay bor ci la bokk boo lebee nit ki xam bor gaawal fay ko juróom-ñett yooyu xam gan ganale ko ca la bokk soo amee gan bu ne cëpp ca kër ga bu fa ñam nexee gaawal jox ko bu ko laaj kañ nga bàyyee koo foofaat nañ nga defoon nag di seet ba xam añ na ci àll bem mu déet ko ñam rek juróom-ñett yooyu gaaw boo xamee bàkkaar lagg gaaw dem tuubi tamit ca la bokk waaye walaa yaqula bu mu wax ne xattaa yahdiyanii ba ta jubalee ma allahu yàlla toog rek téye sa bakkan di fontu naan ax ah man de yàllaa ma xoowut ci boppam rek comme ni ko ñu bari di waxee ah man su ma yàlla baaxaloon ma baax yàlla ma baaxalul rek fa innahu naka kàddu googu koo dégg mu koy wax nala la wóor nekk na ci moom min alaamati shaqaa yi mandargaay texeet di texeet di nag mooy ku jëm safara nekk na ci moom wal xislaani geccal mooy ku yàlla seetaan nekk na ci moom wa tamsil basirati far ji gisab xol kon toog naan suma yàlla jubalee ma jub te jéemoo fàggu njub jéemoo fàggu lu baax koo dégg mu koy wax ñett yi mi ngi ci yow mandargaay texeet yi mi ngi ci moom màndargaam geccal yàlla seetaan ko ñàkk koo defe waxati ma ngi ca moom waaye tamit gis-gis xolam bi nga xam ne moo doon gis lu baax da mujj effacé wu tamit mi ngi ci moom tamsil basira muy far gisab xol mooy nit koo gis ba mu juddoo dafa juddoowaale xol bu set wecc moo taxoon yonent bi sallallahu de daan wax ne di kullu mawludin yuladu ala alfitra kuñ jur ku ne dañ ko jur ci set fooy fooy blanc dal ñëpp indiwaale boo xam ne binduñ ci dara amul benn tache soo demee na ba xas masóor góor nga wala jigéen nga bàkkaar bi nga njëkk a def day sombeeku to day soppeeku tomb bu ñuul ci sa xol soo ko tuubut defaat bàkkaar muy gën di yokk nga defaat bàkkaar muy gën di yokk nga defaat bàkkaar muy gën di yokk day dem di dem ba tomb bu ñuul ba mu ji lekk lu weex lépp su ko xasee lekk nag jeex na kenn mëntu laa waarati déglu ay kasetu caaxaan def ki sa xaalis moo lay gënal bi maanaa déglu waxtaanu wu jëm ci wàllu yàlla ki lay woo di la wax dëgg day mel ni ay jaasi la lay dóor doo ko bëgg déglu ku lay jay rek yaa fi man yaa mel nii ngay tiitaru loolu rek maanaam mooy li la intéressé ñooñu la yàlla di wax ne kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanoo yaktibuna jooju nag musibu ko lu bon la kooku nag koo dégg mu koy wax naan yàllaa ma jubalagut moo tax jubuma su ma yàlla jubalee ma mel ni ñëpp xamal ne xolam ba lu ñuul laa ngay lekk lu weex la kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax duwul waxi caaxaan bu ko kenn di foyeti te bëri na lool ci ñi nga xam ne ay waxa boole lañ wàccee tubéy sol kabam gannaaw yàlla ma xoogut ci boppam nangam ak nangam waxa boole waxambaane baax na mais waxa boole lu bëri ñoo ko yàq moo tax mu ne wala yàqula bu mu wax xattaa yahdiyani ba ta jubalee ma allahu yàlla fa inna woon naka loolu min alaamati shaqaayi bokk na ci mandargaay texeyaat yi wal xislaani ak gecci wa tamsil basirati ak far gisab xol